élection yi ñu génn dafa am ñaar nit ñoo xam ni danoo nekk Thiès doon politique président Macky muy ñaari ancien maire ñaari ancien maire yooyu wax naa leen ñi leen ci février nanu leeral seen position ndax dama doon bañ ñu mbas président Macky wala ñu mbas Cees kenn ki mbas na président Macky Sall kenn ki mbas na Cees li ci des nag raw li bët nee naa leen su ma fëggul woon pour xam seen position tey lii leer du leer tey waaye nag man damay politique ñoom ñuy politique nangul naa leen seen position li ci kanam tuuti li ma bëgg a wax ak li ma bëgg a def duma ko defee à l'étranger li jëm ci wàllu woowu dinaa ci ñëwaat ci beneen anam ak ñeneen ak neneen nu may ñëwee yàlla baax na nanu yàlla may may wér gudd ak fan fekke waaye fii ñu jëm mbas boobu ñu mbas nag compliqué na situation bi à Thiès loolu laan woon naa ko tënk ci côté boobu waaye loolu maa ngi ciy ñëw ci kanam incha allah rabbi